jaa jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës euh, sergent euh, chef Mamadou euh, Kalidou Diallo ak sergent El Hadj Boubacar Ba muy soldat yooyu ñu faat ca Gambie gannaaw nag seenu jàmmarloo ak fipp yu MFDC yu Casamance ni ki sànq nag kon lañu doon yëkkati rek kon seenuk néew ñoom soldat sosé nag l'armée bu Sénégal delloo leen jukkal bu baax a baax ñu ngi faatu diggante ñaar fukki fan ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier eh, bii ñu nekk eh, ñu soxal wàllu soldaar yooyu tamit jàpp leen ni ba fii ñu waxee ak am na ci juróom-ñeent yoo xamante ni nii nag ñu ngi leen di wër eh, gis guñu leen bëccëgu tey jii nag ñuy fàttaliku Mamadou Diop ma faatu woon muy étudiant boobu bi mu faatoo léegi nag am na kon fukki at ci tey jile ñu faatoon ko ca place de l'obélisque moom moomee ci anam yu doy waar keneen ku nu faatit bis ni tey muy fanweeri fan benn ci weeru janvier Gueye muy étudiant ba di Balla Gueye moom nag faatoom ak léegi am na ñaar fukki at ca UCAD ay ñoñam nag euh, ñi ngi doon fàttaliku bis bi di ko ci ñaanal waaye nag di sàkk ba tey kon yoon euh, daal di gën a leeral ci euh, mbir moomee dinañ wax ci leneen muy nag ki nga xamante ni seenoon nañu ko nee ñu sax ab seen la wala du ab seen ndax ba nëga ni xamuñu woon fan la nekk moom moomee sampoon ndëndëm di laaj nag mairie bu Ndakaaru Mohamed Massamba Sey lañu koy wax campagne séenee su ko fenn waaye lu mu ci mën a doon moom nee na góorgóorlu na tey euh, ba nekk nag conseiller euh, municipal lépp ñaari junni ci euh, doomu aadama kon daal di koy woteel moom moom moomay dellusiwaat na ci rëq-rëq yu mu jànkoon teel qualification sunu gaynde yu Sénégal yi tamit daañu ci yéey yaat bi démb la woon seen diggante ak gine équatoriale ñu dóor ko ñetti bal ci benn suñu gaynde yi di waajal nag seen diggante ak rek Burkina Faso loolee nag ci demi-finale noppee euh, daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dale na jàmm ci euh, xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci ndorteel li euh, sergent chef euh, Mamadou Kalidou Diallo ak sergent El Hadj Boubacar Ba mooy ñaari soldaa yooyu nag ñu fàtte ca Gambie gannaaw nag bi ñu doon laalee ak fippuy MFDC yu Casamance tey ci suba nag la leen l'armée bu Sénégal doon sargal nag doon rek kon yëkkati seenub néew ñoom soldat soosee nag ci fàttali ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne euh, ci lañ leen faatoon waaye nag euh, teewul ba nëga ni am na yeneen i soldats yoo xamante ne ñu ngi leen di wëtt gisuñu leen euh, seen lim toll ci juróom-ñeenti soldats Marcel Farba Malum lañu ci àndal ak Thierno Laurent Mendy ñaar ci soldat yu daanu woon ci réewu Gambie jot neen hommage u armée bi ak ministre Sidiki Kaba tey lundi ku ci njëkk doon sergent chef Mamadou Kalidou Diallo bi nga xamante ne mu ngi daal di dugg ca forces armées ci atum 1998 daal di def ay bataillon yu bëri balaa moo daal di dem ca cinquième détachement mission bu CEDEAO ci réewu Gambie sergent chef Mamadou Kalidou Diallo moom titulaire certificat aptitude technique numéro 1 ak numéro 2 spécialité mortier lourd la amoon ak certificat interarmes ak brevet supérieur numéro un ba léegi ci mortier lourd ba léegi ci mortier lourd mu daal di def lu toll ci ñaar fukki at ak ñeent ca l'armée ba gannaaw ba mu nekkee soldat première classe caporal caporal chef sergent ak sergent chef. les valeurs intrinsèques du jikko yu rafet yu sergent chef Diallo mbëggeel gi amoon ci armée wane woon yoon wu baax wi mu jaaroon ngir ubbil ko. carrière bu am solo ba mu mujj nekk sous-officier bu mag a mag li koy firndeel mooy jaar-jaaram kenn du ko naatable qualité mi it ñëpp xam nañ ko man ko seedeel ko ko ay kilifaam ñoo ko njëkk a wax ay qualité yi it naka noonu ñëpp man ko seedeel ko lu baax loolu njëkke ci ñoom ay kilifaam ku compétent la woon nekkoon royukaay nit la ku fonkoon doomu aadama ñu yar ko fan ko wara a yaroo mu bëgg lool liggéeyam matal ko moom sergent chef Diallo ba tax na ay kilifaam wóolu woon ko wekk ko respecté ko na ko nooy ay naataangoom yi mu doon liggéeyee doon. beneen jàmbaar bu daanu ca réewu Gambie mu di sergent chef El Hadj Boubacar Ba moom atum 2000 la daal di dugg ca armée. ci titre trentième promotion bu ENSOA moom tamit ñu daal di koy affecté ci ay bataillon yu bëri balaa moo dem rejoindre mission CEDEAO ca gambi ñu nommé woon ko fi sergent sergent chef te ñu bindoon ko sax ci tableau avancement ci promotion ngir mu doon adjudant moom titulaire certificat d'aptitude technique numéro 2 ak certificat am numéro 1 ak numéro 2 sergent chef El Hadj Boubacar Ba daal di servir ci ay mission yu bëri comme bi fi jot am ca Darfour. les états de service du sergent chef. jaar-jaaru sergent chef ba wane na ni parcours bu exceptionnel bu ñëpp mën a rafetlu la def muy gone nekk sous-officier bu am valeur yi looloo tax boo koy noté rawatina ay kilifaam. lu baax te rafet rek la ñuy seede ci moom sous-officier bun yaroon la bu ànd ak xadar bëgg li mi def muy dignité ak confiance su ay kilifaam looloo tax mission buñ ko mës a jox dina ko matal la ñuy xaar ci moom mu def ko. ñuy fàttali ne ñetti soldaa sénégalais ñoo ñàkk seen bakken ci wàllu mission CEDEAO ci réewu Gambie bu ñu sukkandikoo ci journal quotidien bu tey rebelu MFDC yi dañ leen teg lu ñuy naan guet-apens ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Marcel Maroun euh, di wu rek euh, kon njabootuk jàmbaar yooyu daanu armee bu Sénégal di jooy keneen koo xamante ne nii ku ñu ràññee woon la fii ci réew mi muy colonel Malick Cissé moom it daal dinay làkku rek ca hôpital Fann gannaaw nag ab feebar bu ko tëraloon moom moomee di colonel Malick Cissé ci fàttali nekkoon na tamit conseiller bu président maître Abdoulaye Wade ci jamonoom moom moomee amee ñu gën ko xamit euh, ci parti démocratique bu euh, Sénégal ak rek jéego yi nga xamante ne mi ngi ko fa doon def waaye it euh, mission yi mu doon doxal ki nekkoon jiitu réew fii ci Sénégal muy maître Abdoulaye Wade télévision Futur Média jaarale ko ci samay kàddu moom it di rek mastaw njabootam. ni ñu ko waxee woon ci euh, ponk yi bi mu faatoog léegi nag mat na fukki at ci tey muy étudiant boobu di euh, Mamadou Diop moom moomee nag euh, la dragon bu police waroon fële ca place de la nation foofee nag mu nekkoon loo xamante ni mbir mu metti woon te tiis ba nëgëni nag njabootam ñu ngi koy fàttaliku saa ñu yegsee rek ci bis bi dañu koy daal di ñaanal bu baax a baax moom étudiant boobee di Mamadou Diop du woon moom kese ñu ngi fàttaliku tamit beneen étudiant. Euh, muy rek euh, Balla Gaye moom it bis ni tey la dudd woon muy fanweeri fan ak benn euh, ci weeru janvier am na nag ñaar fukki at moom moomee di Balla Gaye fële ci université Cheikh Anta Ndakaaru ay ñooñam nag ñoom it daal nañ koy ñaanal tey jile waaye nag leneen la ca nekk rek mooy ba nëgëni nee ñu yoon nag dafa desee leeral bu baax a baax ci mbirum fàttuk Balla Gaye Alassane Ba la ñu ci àndal ak Alioune Diagne xew-xew yi ci suufu pavillon ba ci wetu monument bi ñu tabaxal moom dem si yàlla Bassirou Faye lañ ko tàmbalee ñaar fukki at a ngi nii bi mu làqoo booba léegi moom Balla gay ay ñoñam étudiant di ko fàttaliku. ginnaaw ay waxtaan seen biir ñu dox jubali ca kanamu direction bu COUD fii la étudiants yi waxeek taskatu xabaar yi lu ñu bëgg mooy justice def liggéeyam ci faatu moom Balla gay Bassirou fay ak kii di Fallou Sène à chaque fois dañuy revendiquer justice justice justice justice te justice boobu noonu duñ ko gis moo tax ñuy lancer un appel au niveau des autorités compétentes ngir yàlla war rasul ngir yàlla war rasul dañ leen ko ñaan université dañu dañu soxla maanaam ngeen leeral ngeen leeral maanaam suñu martyr yi nga xamante ni nii dañu dañu faatu ci ci cause bu noble maanaam di défendre maanaam intérêt étudiants yi parce que défendre intérêt défendre intérêt étudiants yi moo tax tey ba ñu am si ay acquis donte nemmeeku nañu ci li nga xamante ni ñu ngi ko doon sàkku euh, am na ci ay avancées waaye liñ ci naxaru rek mooy dafa fekk ni seen naataangoo yooyu faatu ba noppi ci la nguur gi di door a def li ni mel. loolu wax dëgg fa yàlla doon na li nga xamante ni dafa ñaaw te ñu ngi koy ñaawlu ñaawlu ñaawlu ñaawlu ñaawlu lu ñuy lancer un appel autorité yi mooy ngir yàlla war rasuul ngir yàlla war rasuul nañu jël sañu disposition di toog ak représentant d'étudiants yi di waxtaan ñoom di diisoo ñoom parce que tey fu waxtaan amul rek. maanaam ak déggoo dafa mën a am. leneen itam li ñuy ñaawlu mooy ñàkk waxtaan seen digg ak jëwriñ ji yor wàllum enseignement supérieur. ñun ñaari combat moo fi nekk dafa am combat bi nga xamante ni c'est pacifique am combat bi nga xamante ni dañ koy def xam comme ni ngeen ko gisee maanaam ni koy defee si si abonné si ànd jot. instant bi nag dañ toll ci wax dañ toll ci wax ñu ngi wax nag di ko lancer en appel si ay discussion par rapport ak université ni mu war a fonctionner. at wu jot étudiants yi di fàttaliku moom Balla Gaye di ko defal itam ay ñaan suuf oyof ci kawam moom mi nga xamante ni dañ ko faatoon ginnaaw ay jaamarloo yu doxoon diggante police ak étudiants yi faree fii ci université Cheikh ante Diop fanweeri fan ak benn ci weerub janvier la woon atub 2001 Alassane Ba ñu lay euh, jaajëfal bu euh, baax a baax ñu yegg ba commune euh, bu Sédhiou foofee nag ndongo yi ñoo génn doon manifester li ñu bëgg rek mooy seen i jàngalekat delluwaat ca classe ya ndax sonn nañu seen doxu ñaxtu boobee nag ba ñu ca noppee am na bataaxal bu ñu jébbal préfet bu diwaan bu Sédhiou commune bu Sédhiou Bakary konte la ñu ci àndal ak Xaali Jàmme élèves yi nekk ci collège ak lycée fii ci commune bu Sédhiou doxantu nañu ci mbedd Sédhiou yëpp wane seen nakar ñoom nag ñu bëgg ci nu ma gën a gaawee ñu dooraatu cours yi ndaxte ñi ne fu mu nekk nii dafa mel ni gouvernement bi ak enseignants yi dañ leen bëgg a sacrifier. tey suñu marche bi lu ko waral mooy grève professeur yi nga xamante ni ñun ñooy génn perdant ñun ñooy doon perdant yi te tamit. grève yi gis nañ ni nu muy topp nu mu succès deewoo nii ñun rek ñoo ci perdre professeurs yi bëgg nañ ñu état bi waxtaan ak ñoom ñu trouver benn terrain d'entente bi nga xamante ni dinañ xool daal ñun ñu mën a reprendre suñu cours yi ndax boo xoolee élèves terminale yi ñu ngi ni ba tey xaaju programme bi sax defaguñ ko te tamit boo gisee euh, lu beneen ñaari point moo tax ñuy def marché bi tey composition yi tamit bëgg nañ balaa ñu koy def ñu def suñu devoir deuxième devoir yi ba pare balaa ñoo jublu ci composition yi. bu ñu defee marché bi ba pare nag dañuy ñëw ci préfecture bu Sédhiou daal fee déposer benn mémorandum. ñu ngi am mbégte bu mag tey di le mémorandum qui a été transmis par le collectif des élèves des CM et lycée de la commune de Sédhiou donc collectif bu am démarche bu rafet bu responsable ci ay xale donc ñoo am initiative bi dem seeti seeni professeur waxtaan ak ñoom ne dañoo bëgg organiser une marche pacifique ñu yabal leen fii préfecture ñu recevoir leen waxtaan ak ñoom ci organisation marche bi mooy waral tey bés bi ñu am ko ñu ñëw fii liir seen mémorandum transmettre ñu ko te ñun tamit dinañ ci def lu ci war jottali ko kilifa yi te ñu ngi ñaan vraiment situation bi gaaw revenir à la normale ñoom seeni i yàlla mën ko saafara. parents d'élèves nekk ci tiit ak jaaxle fii ci diwaanu Sédhiou ñu bëgg nag ci nu mu gën a gaawee nguur gi ak enseignants yi daal di toog waxtaan pour jàmm dellu siwaat ci l'école yi ndax ñu mën a sauver lu des année scolaire bi. ma nga ko gannaaw commune bu euh, Sédhiou ñu yegg it euh, feneen euh, muy ci bëj gànnaaru réew mi foofee nag sagara ngay xeeñ ndax ñaar fukk ak ñett ci njaboot ñu ne boo moyul nag kon daanu ñàkk seen i kër teg ci ñàkk seeni i terrain terrain yooyu nga xamante ni ba ko joteeg léegi am na ñaar fukki ci tey lépp nag ñu ne Petrosen moo leen ko nara a ñoom njaboot googu jot nañu bataaxal bi war a tax rek ñu jóge fa ñu ne nag lañ leen di jox ni ndàmpaay daal ni juróom fukki junni Euh, ci la toll ñu xeeb ko lool tey sàkku sax euh, ci euh, nguurug Sénégal mu taxaw ci ndax ñàkk seen kër yooyu sax ak terrain du lu leen gënal ñu teewlu Saliou Diop moom moo wax ci seen tur ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. dañu am suñu doléance suñu lu ñu xam dafa ñu metti ñuy ñaan dépp doomu ndar mu jóg jàppale ñu ci li nga xam dafa nar dal suñu kaw parce que ñun fii ñoo fi nekk ay terrain depuis vingt ans ñoo fi nekk difi def suñu doole di fi daan suñu doole. sud bi ñoom lañ ñëw sud yow ni def am ñoo xam dañuy jóg 23 jël nañ 23 parcelles dañu war a jóg mais ñooñu ba ay say doomu ndar lañu bëgg nañu defar ndar ñun bañu ñu loolu mais na am na ñuy jógee nag xanaa man du ma def 5 millions nga may jox jullit sax taxaw di wax sa moromu jullit sax ak la fii boo xoolee population bi ñi fi taxaw nii nga xam doole lañu. président de la république ko dégg li ñu ñaan mooy ñun bañu jóg bañu jóge fii mais li suñu àq lañ wax nañ ñu ko jox. nekkoon na zone boo xam ne dafa deex ñu fi nekk def suñu doole def suñu doole ba tey mu baax soxla nañ ko nañ ñëw ñu waxtaan ak ñun ay jullit lañu mais woote menaces yi ñuy def amul njëriñ njaboot googu di yuuxu ca gox ba ñu naan Njolofeen la ñu euh, fekk baax euh, kuréel gi di aar li ñu bokk bu Kaolack nag ñoom euh, dañoo taxaw ñoom it lànk ne duñu tabax ay bâtiment ca boulevard bi nga xamante ni nii moom moo féetee ca gox ba ñu naan Saara ndax gis nañu ne gox boobu képp nag moo nekk gox boo xamante ne tey jile daal lu mel ni kon xale yi mën nañu faa nekk kon rek di def ay xeetu tàggat yaram ak lum ci mën doon. yoon boulevard la boo xamante ne bëgguñu koo seetaan euh, benn yoon tey ji la ñu di ko euh, ñàkk muy espace boo xamante ne kon niñ ko waxee rek ndaw ña la ñu ko euh, jagleel Pape mbay Diawo Faly ci leeral. lañ ne boulevard bii xam ne fii la ñu taxaw tey ñu tuddee ko boulevard de la liberté moom la boulevard boo xam ne nii Kaolack moom rek la desee comme boulevard boulevard bi nag mi ngi tepp départ national numéro 1 bi jëm ba Ndorong. te gis nañ ne vraiment ñu ngi fiy def loo xam ne nii buñ ko toppee dinañ fatt nit ñi dinañ yàq dëkk bi dinañ indi encombrement si biir dëkk bi. gis nañ fa construction boo xam ne moo ub suñ bopp yi ñu ne nag loolu du si da du si dal daf ñuy jaral xeex daf ñuy jaral xulo daf ñuy jaral lu nekk ba loolu jóge fi. laat baabu moom moom terrain bi li muy tabax foofu. c'est pas du tout normal. ñuy jël affaire yi di ko jox ay doom ay nit yenn nit ñi di leen privilégié ñu fiy tabax loo xam ne du yoon loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg mais fii c'est pas normal fii tey ji buñ ko favoriser conseil municipal bi di ko joxe kon bu yàggee nag kon vraiment ñun ñëpp dañuy am problème ñi ngi interpeller surtout maire bu bees bi muy Serigne Mboup comme moom mooy la maire bi nga xam ne moom la Kaolack fal actuellement na veillé si loolu parce que Kaolack dafay subir loolu ça fait des années mu subir loo xam ne nii vraiment c'est pas du tout normal parce que vraiment bi ñu defee démarche yëpp ba arrêté travaux yi arrêté travaux yi nag ça veut tout ça veut bu doonee c'est continuel su doonee nag dañ ko def rek pour sëlëm ñu aussi duñ ko nangu fii ba géej gi di fer nag fii ba cinquante ans dañoo war a libérer suñu boulevard mangook laxaat baabu moom mooy euh, promoteur ba suñu ndaw nag jéem nañu Euh, jokkoo ak euh, moom waaye mujj la euh, sotti moom nag mairie bu ndakaaru la doon xëcci waaye nag mujj cee jot waaye tamit dafa mel ni kenn xamu ko Mouhamed ma Seye la lañu koy wax campagne bu fu mu féete woon xamuñu li mu wax rek mooy ñi ko sonal nag mooy préfet bu ndakaaru bokk na ca ndax nag moom moo rejeté woon listam teg ci loolu bokk na ci li ko gën a gàllankoor ba tax na daal na mu waroon a fësee nii waaye li leer rek mooy tey fexe na ba doonub conseil ndax lu bon bon lopp ñaari junni ci doomu aadama sànni nañu ko xob moom moomee di Mohamed Massamba Sey dañu ci ànd ak Thioro Mbaar Ndiaye Thierno Laurent Mendy mu dikk ak ñun ci waajoojee moom mile daanaka sax mën nañu ko woowee fantôme bu ndakaaru li ko waral Mouhamed Massamba sey ci campagne électorale bi ñu génn kenn tegu ko gët donte sax moom mile moo jiite woon coalition jàmmi Sénégal moom sax bokkoon ci juróom-ñaari candidat yi nga xamante ne ñoo doon xëccoo toogu bu ville de Dakar. waaw dinañ naqarlu nag li nga xamante ne peut-être mooy wàllum euh, préfet bi ci li ñu njëkk a faxasal waaye aussi dellu ginnaaw presse bi nga xamante ne bu leen waxee ne am na juróom-ñaari candidat yoon la woon ci ñoom ñu dem wëri xool juróom-ñaareelu candidat boobu kan la parce que comme ni ko xamee chaque fois da ngay gis ñu naan la six candidats six candidats waaye am na septième mi nga xam ne ñun ay ndaw nañu. du meeting. du caravane rawatina affiche ci mbedd ndakaaru yi ngir daal di mën a woo sénégalais yi ci ñu woteel ko moom mile naam loolu lépp ay gàllankoor la woon président bu à parti bile mu dippee parti pour l'émergence et le développement di naataange moom mile am na résultat bu xel nangu lu ëpp ñaari junni ci ay baat la daal di am loolu sax tax mu doon conseiller municipal fi mu toll nii ci mairie bu Ndakaaru. tey boo xoolee ci voies yi am nañ pris de deux mille six cent cinq voies. campagne bi amaana euh, jotu ñu gis bu baax ci ni ko xamee amaana ñëpp jàpp nañ ne peut-être booy campagne war nga def affiche yu mag yi war nga yore say 4x4 say sonorisation ak yu mel ñun nag ay ndaw nañu amaana suñuy moyen taxu ko demee noonu wala am na ay gàllankoor yoo xamante ne sax am nañ ko ci ba tax na jotuñu ko def waaye ci kaw loolu rek comme ni nga ko xamee euh, tey en tant que ndaw. su engagé jot nañu utiliser lu mel ni les réseaux sociaux lu mel ni WhatsApp ak Facebook entre aussi lien yi ñu am ak relationnel bi ñu am ba sunu borom dimbali ñu ba tey jii kat ñu fa ñu euh, sunu borom dimbali lañu ba ñu am benn conseil jàll conseil municipal. moom mile fanweeri at ak ñett rek la am doomi HLM bi wax ni dina def kem kàttanam ba li nga xamante ne moom mooy mission wam ci wàllu conseil municipal bi mu doon mu matal ko. loolu sax lay sàkku ci ñeneen ñi nga xamante ne ay candidat lañu woon te gagné wuñu may profité nag di félicité ki nga xamante ne mooy honorable maire Barthélémy Dias di ko ñaanal sunu borom mu dimbali ko ba yan bi ñu ko yan euh, mu nekk loo xam ne dina ko réussir lépp muy jëriñ askano waaye may dellu ginnaaw aussi di woo ki nga xamante donc mooy yeneen candidat yi si des muy juróom candidat yi ko xamal leen kat bu ci kenn joxe mandat conseil am na ngeen ñëw ñu àndandoo siège biir conseil municipal euh, pour ville de Dakar ñu bootu ci xam mooy le maire Barthélémy Dias te àndandoo liggéey Dakar lii doonoom ab candidature boo xamante la ko tuddee moom Mouhamed Massamba Sey moom mile am master ci wàllu banque finance jàpp na ni nag média yi yóbbee nañu ko résultat wam bi naka noonu préfet bu Ndakaaru Thioro euh, Mbaye Ndiaye ci jamono jooje nag euh, fële ca mairie ouest euh, bu Thiès Mamadou Lamine Massaly nag ba nëga ni mënta nangu ab daanoom ci wote yi ñu génn loole nag metti ko lool ndax jàpp nañ ni yu baree bari kon jaarul woon ca wote ba ndax am na ci ay bureau de vote yoo xamante ne tey boo ca yeggoon da nga xam ne lëcc lëcc bari na ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta ak Seyla Thief. la ñu mënoon yëpp def nañ ko waaye kuy waxal yàlla. xam na li xew Thiès c'est tout sauf des élections c'est inadmissible ce qui s'est passé à Thiès dafa mel ni rek man maa doon cheval bi nga xamante ne moom la ñu war a rey ay coalition man cundum maa dem élection sans coalition de partis politiques avec des hommes engagés des femmes déterminées ñu jóg pour le changement ñu wër di def def fausses information sur ma personne man c'est hier que je l'ai reçu mais su ma ko yogoon dinaa amoon beneen taxawaay ak beneen doxalin sama diggante ak ñoom ñu taxaw ba dem naan président Macky Sall moo ma financé man sama sama famille y a pas amul amul jàmm man su ma nekkoon APR damay taxaw yëkkati sama loxo ne APR laa bokk. li xew si élection yi ñëpp xam nañ du élection élection yoo ne nit ñi dañ continuer di voter ba minuit yenn enseignants yoo xam ne c'est des complices de cette lâcheté li nga xamante ne moo am parce que dañu far naka la ñuy jëlee ay nit ñu nekk en grève far ba pare. ñu jël di leen jiital di leen def ay président jury ce qui est anormal même des journaux ont été bourrés nit ñu gis nañ ko te xool nañ ko man jël je ne féliciterai personne parce qu'ils n'ont pas gagné ces élections la li fi am ay élection lenn amu fi waaye nag atte yàlla moo gis lépp looy gis man su ma leeroon ne campagne bii nañu ñu contrement personne leneen dana doon am Thiès dañ ma tooñ ñu des ba tey ci wàllu politique njiital conseil départemental euh, bu Mbour moom ci jamono jooju moom it ma ngay euh, sàkku rek euh, ci ñii ñu fal ak ñi nga xamante ni nii ñoom tey ñoo ami ndomb ci wote yi ñu génn ñu gën a jege seenuk askan ni ñu ko nemmee woon ci campagne bi ñu gis itamit ni askan wi léeg-léeg nag la faral di joytu bari na kon li gën tey mooy ñu gën a taxawu askan wi moom moomee nag taxawul mu ne am na ay projet yoo xamante ne projet yu am solo solo la Saliou Samb la ñu koy wax ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo. population bi la moo leen métti te mën naa ñu ngoon ci biir gox-goxaat xam na li ñuy wax sunu maire yi yëguñu ñu nit ñi responsable dañuy xaar ba élection ñëw ñu doog a ubbi seen téléphone yi duñ gis kenn nit ñi nag soo koy soxla yëgul duñ la yëg problème bi loolu la donc damay demander maire yi ak responsable yi nañu ubbi seen i yi nit ki amul la ci ragal. su ñëwee jàkkaarloog yow wax la loo xam ko nga wax ko si jekk tànga nga mënoo ko mais na ngay ubbi téléphone yi di wax ak ñoom parce yaa demandé à être un responsable un responsable nag da ngay res nit ki soo bëggee responsable da ngay nangoo res problème yi su amee nga res ko su neexee nga res ko su naqaree nga res ko département de Mbour nag maire yi gagné yëpp dañoo dañoo nekkoon ñoo xam ne ñoo jege ñoon seen askan wi ñeneen ñi dañoo amoon ay bilan parce que tam ñuy bi bilan bi mooy développement nekk ci tëli nekk ci njëg si xëyu xale yi nekk si njàng mi nekk si jigéen ñi dañ ci dañ euh, maintenant dañuy compter ci Mbour pour pour pour pour les législatives et le futur. tey soo xoolee euh, dajale nañ nañ dajale nañ candidat yëpp ñëw ñu ngi fa woon candidat yëpp maire yi waxtaan ak ñoom il faut qu'on garde l'unité ñi gagné tamit ñi gagné on a leen euh, tànn tànn la la mais pour ñu xam ne njaboot Macky Sall mais yi ñu perte tamit waa njaboot Macky Sall ñoo ko gagné donc tamit wax nañ ne waxtaan ak ñoom jox leen tàll leen loxo pour ñu ñëw tamit ñu ànd travail dans dans l'ensemble ma ngoog euh, kon woteek gox-goxaan yi ak yi ñu ci nemmeeku yépp euh, coalition euh, benn Bokk Yaakaar ñu gis ni nag bari na lool ci ay localité yoo xamante ni daf ko ñàkk ci réew mi moo waral kii nag di kilifa diine nekkit njiital politique ca Touba muy Serigne Modou Bara Dolly moom li muy sàkku rek ci président Macky Sall mooy nag ñamu àndaloon démb mu wooluwaat leen ñu ci mel ni nag kon Mimi Touré Aly Ngouille Ndiaye ak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 mu nekkoon reportage bu Papa Balla Gaye ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu wàddu ci tàggat yaram dellu nag ci qualification bu sunu gaynde yu Sénégal démb nag gannaaw rek seen diggante ak Guinée équatoriale ñu dóol ko kon ñetti bal ci benn qualifié ci demi-finale bi ci Coupe d'Afrique des Nations 2021 bi am fële ca Cameroun demi-finale nag Burkina Faso la gaynde yi fas yéene kon laaleel ñu teewlu ñenn ca ñoom ci micro Mamadou Ndiaye sénégal yi dañ ma dañ ma joxoon confiance man tamit foog ma delloo leen ko parce que xam ni Sénégal rek a ñu ñor dañuy def lépp pour Sénégal voilà coach bi def ma confiance équipe bi tamit voilà ji féliciter équipe bi yëpp parce que nekkul man dong parce que ñëpp a ñëpp def liggéey bi. liggéey voilà xam ni gëm ko rek parce que mentalement je suis prêt. continuer travail travail voilà. waaw c'est normal parce que coach bi def ma bëgg préserver tu parce que am na yeneen match yu ñëw xam naa bëggul yàkkamti parce que maa ngi doogaay ñëw am na ñu am na am na ñu fi nekkoon waaye day def nànk nànk nànk ba ma am rythme après ça va aller allah. da koy da koy préparé comme match yëpp rek match la comme match yëpp rek concentration euh, def lu ñu war a def li ñu sénégalais di xaare maanaam joxe lépp lu ñu am dem ba jeex. voilà di naan yàlla mu may ñu bu baax baax c'est pour par exemple am na ñu bëri ñoo xamante ne teel a woon seen premier demi final di ñaan mu konne ba waaw di ko préparer comme ni ñu ko yàgg préparer parce que début début tournoi bi ba léegi ñun ñu ngi def ni suñu bopp ni chaque match final la di ñaan mu konne rek pour mun a atteindre son objectif pour mun a bégal. Sénégalais incha allah. waaw loolu dafa neex na ma parce que je pense que yàgg na boo xam ne sama dernier but. Euh, yaakaar naa ni euh, xaw ma ça date de deux ans tey nga ñëw dugg euh, dugal donc euh, ça fait plaisir en plus avant may dugg donc jo ñëwoon na ak <laughs> ak Alfred ne ma tey bii bi yaakaar naa yaa dugal donc ça fait plaisir donc kontaan rek. waa c'est sûr parce que boo xoolee nu ñu commencer donc bu ñu commencé amuñu woon préparation boo xam ne joueurs yëpp ñu ngi fii lu ñuy gën a di dem waaw ñuy gën a récupérer suñuy joueurs. et boo xoolee équipe nationale bu ñàkkee quelques jours cadre c'est pas du du benn quoi. mais comme ñëpp ñu ngi fii dañuy essayer carrément gérer euh, rester en boule et liggéey parce que yaakaar naa ni euh, compétition bi yombul benn compétition boo xam ne dafa dafa métti gars yi ñëw tout le temps di wax Sénégal euh, mooy favori man favori compétition bi amul favori. commission bi amul favori quoi boo ko bëggee moom da nga dem jëli yaakaar naa ko. ba Burkina Faso moom place am dafa mérité. donc mu def yëpp depuis début compétition bi fu mu nekk nii tey dafa dafa mérité xam na ni carrément adversaire bu bu bu rëy la équipe bu baax la. et pour gagner leen il faut que ñu préparer bu baax reste focus et xam ni carrément amul euh, amul favori bu leen bëggee gagner il faut que ñu ñëw euh, rayante et à la fin am lu ñu bëgg. contenté rek contenté puis voilà di wax ne liggéey bu la liggéey la rek c'est juste un travail qui a été accompli par tout le groupe j'encourage tout le monde et je félicite tout le monde et j'espère aller vers l'avant ñu des ba tey ci kaan bi bi yoon nag ak officiel yi Elimane Lam Alassane Ndour ak Mactar Ba am na ay kàddu yu ñu dénk sunu ndaw yu ñu teewal fa fekkee ba fu sam muy mamadu Ndiaye ak Ahmed Niang. ah oui l'équipe monte en puissance et ku nekk ku xam football xam ni compétition lañ nekk te compétition moom du luy yomb comme vous vous avez à le équipe yu mag yëpp yoo xamante ni duggoon nañu ax bërëb wax dëgg fi yàlla taxaw nañu mais tey Sénégal est en train de montrer une très grande équipe. coach bi moom coaching gagnant la tey parce que gis nañu ñaari joueurs yi mu dugal rek ñaari yooyu yëpp ils ont été décisifs donc Ismaïla saar gis nañ ne dugg na vraiment moom tamit am na lu mu joxe gis nañ tamit euh, euh, Cheikhou Kouyaté ba mu duggee tamit dugal na macha allah consigne tamit gis nañ ne pressing bi mu leen laajoon ñu def euh, joueur Guinée équatoriale yi gis nañ leen vraiment sonal nañ leen. parce que ay ay joueurs yu mën football nañu ñu mën a sotti de bal waaye parfois dañuy xaw a naagu trop seen seen technicité donc souvent nag seen point faible la tamit donc gis nañ ne xale yi appliqué nañ ko. li ñu fi andi mooy gagné match bu ñu am dañuy ñaan gagné ko kon bu ñu ko yàlla mayee dañ koy si sant gërëm ko ba pare sant xale yi parce que l' équipe tey wone na beneen visage. am na ay hauts et des bas defe naa ne loolu moom mooy tax ñuy gën di progresser. dama la ne xale yi. boo fekkee tey balaa ñuy dugg ci match bi discours biñ tenir ci seen biir nga xam ne ñii kenn gënu leen bëgg ndam donc loolu dañ leen def confiance xam ne dinañu xeex dinañu trouver solution yi. yegsi nañu ci yëglikaay lu ñu xëy tey jii dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf zalang yi ne ngalañ ci kanamu gaynde yi démb ci quart de finale coupe d'Afrique bokk na daanaka ci jàll ci demi-finale ya rëbbukat bi di Famara Cheikhou Kouyaté ak Ismaïla Sarr ñoo dugal ñetti biti Sénégal yi war a daje ci demi-finale yi nag ak Burkina Faso ginnaaw suba ci àllarba bu sept ci ngoon jotee stade yi ne kay feelu ko ba dañu xamal ne gaynde Sénégal yeeg fa ñu bëgg a yegg wàcc yoon wi démb la wulli waa Guinée équatoriale wulli yu rëy ñetti bal ci benn tax nañu Aliou Cissé ki gaayam ni ñu ko jàppoo démb bu takkul coupe bi Sénégal la jëm si football nañu lu rëy teg ko ci diggante maturité tactique force de caractère ak équilibre journal lay fa nañu waa Zalang national di waa Guinée équatoriale yi ak nañu rakkaaje woon ci coupe d'Afrique bi gayndee Sénégal yi suqi nañu seeni laf démb journal bi teg ci tegal yu ci xëtamu njëkk kàdduy entraîneur bi di Aliou Cissé kàdduy Sadio yu Cheikhou Kouyaté yu président Macky leen di félicité ci ndam li yu ministre Matar Ba ak kàdduy Obiang Biko Gomis mi tàggat Zalang national yu Guinée yi Sénégal yeeg yox-yoxi gi ñu nekkee woon ci Coupe d'Afrique bi bàyyi nañu ko gaynde yu pàdde la ñu gis démb seen digg Guinée équatoriale ñëw nañu dëggal seen bopp tegal gaañu lu mitti gañe leen jàll ñu jàll ci la Sénégal fekkaat fa xibaar bi ba tey ci xëtt mu njëkk mi ngi ñuy xamal ne ay gaynde yu dalum xel la ñu gis démb Sadio Mané ak i ñoñam écarté nañu zalang yi ba dem ci demi-finale yi Burkina Faso la ñu ca war a am Vox Populi nañu Aliou Cissé ki ak ndam lu rëy te lu ñu am démb taxul ñu yanu ko ki ñu yan équipe bi mu di ngi ñuy wax ci yéenekaay bi ne Burkina Faso gi ñu waram ci demi-finale yi match match boobee du yomb beneen taxawaay la laaj beneenub xeex la laaj Sud Quotidien di xamal ci xët bu njëkk ne Coupe d'Afrique Cameroun 2021 Sénégal ma nga ca carré d'as ba Soleil national nañu coaching bu baax moo ñu ko may journal Le Quotidien moom leneen la xëy maye ci xët bu njëkk mu di ay xibaar yu jëm ci jàppante ba woon ca Gambie ci diggante soldaar yi Sénégal yi FIP mi ngi ñuy wax ne la ca l'armée Sénégal ñàkk gëj na koo ñàkk ci jàppante diggam bi nee li muy nuru moo a loxo génnu ci jàpp nañu ne ñooy ñi jàppale fipp yi ba tax ñu jekku soldaar yi ci yëf yi ak ñi ca jëlee gaañu gaañu Le mi ngi ñuy wax ñooy ñan li indi coow li mu di àllu Casamance bi ñu dagg ci lu dul yoon di jël bant yi di yóbbu réew mi Quotidien nee nañu kii di Ali Haïdar newoon fii jamono ministre de l'environnement xamle na ca lu yéeme te doy waar na at mu nekk lu mat juróomi junniy conteneur dinañu bàyyeekoo Sénégal yàpp ay bois fees dell wutali réewum ci Les Échos ubbi di yéenekaay bi kër gi ñu fi taaloon ca Kër Masaar ci jamonoy campagne bi ñaar ñi ci jële woon yi lakk-lakk yu mit yéenekaay bi ne nañu kenn ka mujjee na faatu mu di xale bi amoon ñetti at mu di mbir moom it journal bi jàpp na ne nar naa gën a compliqué kaawu Dieynaba Ndiaye bi ñu ciy tudd ci contrôle judiciaire ca la nekk waaye bu mooy yoon di justice du yem moom foofu libération nañu Bébé Talla Sall tolloon ci ñetti at moo far faatu maamam ji ci moom it am juróom benn fukket ak juróom ma nga ba léegi nekk ci diggante dund ak dañu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit euh, sant na leen gërëm leen bu baax yéen ñoo ñuy fare woon ci machine bi ak ñu euh, jàpp ci xibaar yi ba mu sotti damay delluwaat rek ba ci beneen plateau bi daal di jébbal lengay Pape Cheikh xibaar yi nag dina fi dellusiwaat ci yeneen jotaay ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm te di ko sàkku ci yéen Pape Cheikh ma bàyyi la nga wéyal. ñu ngi lay gërëm bu baax ki ne dig daje gi ak euh, rédaction bu télévision Futur Média ci kanam la à partir de 19h information non stop ba 20h30 euh, euh, lu ko mooy xibaar yi dafay continuer suñu site internet di point www.igfm.sn.